alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saafani liwatani bihi nafa ma anfani bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin nu dellu si waat sunu bindu silkul jawahir tey mooy sunu bindu ñeen fukkeel ak yet ba tey noo ngi wax ci lu jëm ci wàllu yowmal xiyaam nekkoon ci wàllu dee ak malakul mawti ndeysaan mu jógee ci kër ba génn fa rek tabarkàlla waaye nun sun yoon niwul ca loola ndax ñoom ay jaam rek lañu sàkk di leen digal ñooy def kon ñun borom bi subhanahu wa taala rek lañuy ñaan muy oyofal mu oyofalal nu mu oyofalal rabbi nee na fa ida nazala bu wàccee almawtu dee ala baabi ahadin ci buntu kenn ci nun mbindeefi nee na qaama day taxaw bayna yadayhi ci kanamam ki mu war a jëlsi dee day taxaw ci kanamam ala suuratihi ca meloom wax su ma topp mu wax an nafsu bakkan bi muy jël si moom mooy wax ne ko man anta yow yaay kan wa ma turid ak loo bëgg waay fa yaqulu dee ne ko anal mawt man de may dee allazi mi nga xam ne uxrijuka maa lay génne min adduniyaa ci adduna wa ajaalu ta may def awlaadaka sa njaboot say doom yataamaa ñu di ay jirim wa zawjataka maay def sa soxna armalatan muy jigéen ju aji ñàkk jëkkër wa maalaka may def sa alalit mawruutan muy lu ñu donn bay na warasatika ci diggante way donn sax alla si na way donn ñi nga xam ne sax laa tuhibbuhum amaana bëggoo leen woon amaana doo leen bëgg fii xaali xayaatika ci jamono yi sag dund te loolu bari na lool fa innaka naka yow nag law lam tuqaddim bu fekkee jiitaloo woon illaa xayran lu dul aw yiw li naf si ka ñeel sa bopp lakaana kon de mu nekk xayran di aw yiw lakk di la ñeel allahu akbar nee na dee buy jël jaam bi kenn du ko gis kii faatu moom dana ko gis moom dana ko gis mu ñëw taxaw ci kanamu kii faatu ñàng lool ñoom ñaar ñuy waxtaan te kenn du ko mën a dégg kii waaj a faatu mooy wax dee na ko waaw yow kan yaay ak loo bëgg mu ne ko man maay dee mi nga daa dégg waaw man damaa ñëw ngir génne la adduna damaa ñëw ngir faat la su ma la faatee ndaysaan sa doom yii ay jirim lañuy doon man maay ki nga xam ne kër gu ma dugg ba génn rek njaboot ga doon ay jirim sa soxna yi tamit dañuy doon ay jigéen ñoo xam ne ñu ñàkk jëkkër lañu arab di ko tudde armala sa alal ji su ma duggi su ma jëlee sa ruugi ba noppi maay def sa alal ji mu nekk lu ñuy donn alal ji day tuxoo say loxo léegi moomatoo dara waaw moomatoo dara dañ lay donn ña la war a donn ñoo koy séddoo mën naa am sax am ku ca ku ca bokk te mën naa am kooka neexu la woon boo sañoon du du lekk sa alal waaye mënoo ca dara mënoo ca dara ne ko nag bu fekkee ne yow lu baax nga doon def yow sa jëmb ak si say alal ak sa nangam ah kon de léegi du nekk dara ci yow xéewal dong lay doon ah kon daal jóge ci buntu bee buntub buntu tàbbi ci buntu dee ci ay xéewal dong ngay tàbbi loolu safaan ba safaan ba mooy safaan ba mooy nag bu fekkee ne daawoo def loola kon nag tabarkalla nee na fa ida samia bu déggee an nafsu bakkan bi dalika wax jooji dee wax xaw wala day daal di wëlbati wacce wa xar kanamam ilal xaayiti jëm jëme ko ci miir ba waaw wala ca beneen côté ba rek waaye fa yaraa muy gis alma almawta dee xaa iman muy aji taxaw bay na yédeyi ci kanamam rek fa xawala mu wëlbatiwaat wajhu xar kanamam ilal jaanibi axar jëm ci geneen wet fa yaral mawta xaa iman bay na allahu akbar fa yaqul muy wax almawtu dee ne ko alam taarif nii ah ba léegi xàmmeegoo maa anal mawtu maay dee allasi nga xam ne xabattu ngëboon naa jëloon naa ruuxa awlaadika ruuxu sa say doom bu fekkee amoon doom ju wa walidika ak sa waajur fekk am na waajur bu faatu wa anta ta yow tanzuru booba yaa ngi doon xool de waaye gisoo ma dara wa ida axastu bu may jël bu ma jëlee ruuxaka sa roog tey jii lam yanfaaka du la jëriñ de al yawma tey ahadun kenn min axaaribika ci say jegeñaale wa ixwaanika ak say mbokk wa awlaadika ak say doom anal mawtu maay dee allati mi nga xam ne afnaytu maa jeexal al quruuna maasiya al maadiyata ye aji wéy qarnan ab siècle baada na ci ginaa ab siècle aktharu ñoo xam ne ñoo ëppoon min ko ci yow maalan alal wa awlaadan ak ay doom wa quwwatan ak kattan allah nee na doomu aadama bi bu déggee wax ji dee di ko wax ñoom ñaan ñuy waxtaan te gaañi kenn gisut man naam am ñu ne ci néeg waaye duñ gis de waaw moo tax léeg-léeg nit ki lu ne di ko def léeg-léeg mu koy waxtu ñu naan waa lu doon fekk ndeysaan allahu akbar mi ngi gis leneen nee na day wëlbati kanamam ngir bañ li ko dee di wax la bëggut a dégg yaay fi war a jóge tey waaw sa kër gii da nga ko génn tey la sa waxtu yu mujj ci nga nekk nii nee na bu wëlbati koo nee gis fa dee mu wëlbati ko jëm côté bee gis fa dee fu mu wëlbati gis dee moom bëgg na koo gis dee na ko ba léegi xàmmee ma man mboolem ñi jot a faatu ñëpp sa doom yi faatu bu dee am na doom yi faatu man mii maa leen faatoon wala sa waajur ya faatu wala sa mbokk ya faatu moo ne bi ma leen di faa booba yaa ngi ko doon xool te mënoo ci dara tey jii su may jël sa roogi nii kenn du ci man dara ci say jege ñaale say mbokk ak say doom ak ñépp kenn du ci man dara xanaa xamoo ne ñi faatu woon bu yàgg ba man mii maa leen jël waaw mooy maas yu njëkk yi te dama leen a jël siècle par siècle téeméer at bu nekk ma faat leen teg ci yeneen teg ci yeneen teg ci yeneen ñoom ñoo la ëppoon kàttan ëpp la njaboot te ñoom mucc mucc ñu woon ci man ëpp la ay doom kon tey mënoo ci dara ba nga nangu dogal rek su ma yaqulu topp muy wax lëxoo ñeel ko malakul mawti ne ko kayfa raayta dunya waaw bala ma laa faat sax yow noo gisee adduna fa yaqulu muy wax lëxoo ñeel ko moom jaam bi ne ko raaytuha gis naa adduna makkaaratan mooy ab fexe waa kon waxa daaratan tadib waraa kon waaw booba nga koy doog a xam waaw booba ngay doog a xam adduna eh, ndeysaan li nga daa sonn lépp ngi ak li mu la daa jaral lépp booba ngay doog a xam ne ndekete du dara dee moo laaj waa ji mu war a jël ne ko noo gisee adduna ah yaa war a jógee adduna de mi ngi mel ne ku tukki ba ñëw rek ku tukki bay waaj a ñibbisi ñu ne ko ah sëñ bi bala ngaa ñibbi wax ñu noo gisee dëkk bi waaw ah, loolu lañ la laaj waaw ndeysaan ne ko ah, noo gisee adduna nag adduna jii ngay waaj a génn mu ne ko cam adduna kay ndeke workat bu mag a mag a mag la fexe waa bu mag la adduna kay du dara <laughs> su ma yaqulu llaahu yàlla daal di wax li dundee ñeel adduna ne ko ah waajaa ngi lay jëw de kallimiihi demal nga wax ak moom fa taqul muy wax adduniya àdduna ne ko yaa aasi yow aji mooy ji yàlla ama tastahi ndax doo am kersa anta yow xiina aznabta jamono ja ngay def bàkkaar walam tamtane te téeréwu woo arrêté woo minal maasi ca bàkkaar ya ca moy ya innaka naka yow talabta ni sàkk woon nga ma walam tufarriq te doo woo tàqale xalaalan lu dagan min xaraamin ci lu xaraam wa in kanta bu fekkoon danga bu fekkee dangaa nekkoon nag tazunnu di njort ne annaka naka yow laa tuxruj laa doo génn mina dunyaa ci àdduna hay haata loola wuute nag li am hay haata sori fa ana man àdduna nag bari un aji set laa ka ci yow wa min amalika ak say jëf allahu akbar nee na bi mu ne àdduna kay du dara ab warkat kal nangam suñ borom ne àdduna waxal ak waajooji war a faatu mi ngi lay tuumaal kat nee na àdduna ñëw wax bakkan bi ne ko yow moykatu yàlla bi yow jamono yi ngay mooy yàlla ah amoo ci woon benn kersa tayit arrêté woon da nga kon ne rek ci say mooy yàlla yow yaaru ndaw sama ginnaaw di sàkku adduna guddeeg bëccëg lu ne nga sàkku ko bàyyi ko ci adduna boo daa wut sax alal doo tàqalee lu dagan ak lu daganut allah waaw adduna de kon ndeke mi ngi ñuy xool de li ñu seede waaw commerçant yeeg liggéeykat yeeg ñenn ñu ci nekk sëriñu daara yeeg ñëpp dañuy dugg ci biir de ndax léegi-léeg nga gis xeetu wutin yoo xam ne léeg nga gis ci koo foogutoon waaw waaw koo fa ñuy lebee intere leb goo xam ne lislaam riba riba la ko tudde nga gis fa kuñ ne ab jàngalkatu alxuraan la allah waaw malgré métier ma la muy baax baax wala kuñ ne ab sëriñ la walla kuñ ne moo ne de boroom xam la su ko defee nag euh, la ci gën a bon nag mooy buñ ko bëggee tiiñal ko yow kilifa gu toll ne mu tàmbali di lay naan lii gaañ lii nanga boroom xam ñoo ci werante tam di indi ay wax waaw te riba moom daanaka ñëpp dañoo xam ne ne dëgërul nee na moo tax boo daa wut alal ci biir adduna da woo tàqale lu na lu daganut yow kay sa problème mooy dangaa ngaa defoon ne doo faatu man da ngaa da ngaa waajutoon ngir génn adduna loolu nga yaakaar na sa yaakaar tas na man tey set naa cee wécc waaw yaa ngi génn àdduna demal ma dem la nga jëf yaag say jëf la eh, yaay xool noo ko doxale rek allah ci adduna foofu lay mujj ak ñun de moo tax lépp looy wut ngir àdduna seet ko de waaw lépp loo xam ne buñ la buñ la boo faatu woon tey jii lépp loo xam doo la topp waaw ah, nga bàyyi ko ci ay mbir yoo xam ne daanaka du jariñ dara ñeneen ñëw doonu ko kese loola yaa ngi perte de jëlal sa alal jii ak sa kartan ak sa xel mi liggéeyal ci lislaam waaw sëñ Abdourahman mii eh, dem day gis ngeen ko daa waajaloon boppam lim am ci alal lépp mu di dimbalee daanaka këram ka boo fa demee tabarkàlla eh, gis nga nam mel da ko defar defar boo xam ne rek danañ ci mën a dëkk eh, tabarkàlla otoom yam amoon mu jël ko di jox way ñàkk yi ñu leen ciy faj dama ko dikk daa xamoon lim xam de waaw daa xamoon lam xam ndeysaan jël kartanam gépp jeexal ko ci jaamu yàlla jeexal ko ci jariñ nit ñi waaw tey ba mu demee day eh, tubarkàlla ko yàlla fayee loolu lépp gis ngeen ko kon moom bay bayilut adduna dara bayilut adduna dara ndeysaan kon nag tabarkàlla kon adduna foofu lay mujj fa ana bariun minka wa min amalika say daas yeeg sa nangam yeeg oto yeeg yee fii nga koy bàyyi de jariñ dara yow koy liggéey liggéey liggéeyaloo ci yàlla nee na wataraa adduna moo waxaaj na ko wataraa da nga gis maalaka sa alal ji xad waqaa muy tabbi fii yeddi xayrika ci loxob ku dul yow ndeysaan ne ko tey jii de alal ya nga amoon lépp daa am ñu koy jël munoo ci dara nag duñ la ci neexal te munoo ci dara ah foofu nag alal comme tudd nañ ko alal daal di ñëw waaw ñoo ñëpp ay mbindeef lañ alal daal di ñëw fa yaqul muy wax almaalu alal ne ko yaa ansi yow mooy koto yàlla bi kasabta ni yaa ma fàgg woon bi xëyri xàqin ci lu dëgg waaw ay liggéey lekk àqi jàmbur jaay lu baaxut walam tatasaddaq te saraxewa bii ci man alal fuqaraay ci miskiini ah, ci ah, way ñàkk ñi wala masaakin ak miskiini al yow ma tey xadd waqaatu tabbinaa ana man alal fii yeddi xëyrika ci loxol ku dul yow li nga dajaloon lépp tabarkàlla ndeysaan fa dalika loolee qawluhu taala mooy la yàlla doon wax naa yawma bis ba nga xamee ne laa yanfaxu du jariñ mukk maalun alal wala banuun du jaagir ay doom doom yu góor illaa illaa man dare ka nga xam ne ataa andi na ataa allahu yàlla bi xalbin ci ab xol salimin buy aji mucc ci kéefe rek bokkaaleeg eh, mboolem jikko yu yi fa yaqul muy wax almaytu néew bi ki war a faat ne rabbi yow saa borom maa ngi lay ñaan nga delloo ma adduna laaliya ndax lee man amalu ma mën a jef saalihan jëf ju baax amalan saalihan fii ma ci li ma bàyyi fa yaqulu llaahu yàlla ndaa di wax taala kawe ne ko kalla innaha naka loolu mu wax kalimatun ab baat la boo xam ne huwa moom qaa'iluha wax na ko nii rek ci ngelaw la de waaye du ko jëriñ dara kalla mm, fa iza jaa bu dikkee ajaloom seeni dikk ñoom nit ñi laa yastaaxiroona duñu tarde saatan benn waxtu wala yastaqdimun te duñu jiitu nag bu fekkee day jotugut nee na waa ji bu ko adduna waxee loolu ba noppi nag ne ko gis nga alal ji nga amoon lépp yaa ngi ne yaa ko liggéeyoon liggéey boo xam dëgganut tey dangay dem ñu doon na ko far force te nag ca defoon ci lu baaxut da lay fekk ca bàmmeel ba alal doo ko ñëw nag daana ko yow mooy kotu yàlla bi yow man maay sa alal waaw maay sa alal yaa ma fag woon ci anam boo xam ne dëgganut yaa ma woon ci anam boo xam ne dëgganut dawoo saraxe ci man miskin yeeg ñëpp dawoo ci saraxe dawoo ci def dara lu baax tey nag man alal maa ngi dem ci loxol keneen yow moom da ngay faatu jëm ca bàmmeel ba waaw nee na loolu mooy li suñu borom doon wax naan am na bis boo xam ne bu accès alal ay njaboot du la jariñati dara la mën a jariñ daal mooy ku indil yàlla xol bu set néew bi daal ne rabbi irji'uni ci suuratu suuratul mu'minuun suñu borom doo ma dimbali rek léegi comprendre na ah, lii lépp dama ko xamutoon waaw ah, ndekete adduna nii la mel ndekete alal ndekete nangam suñu borom dimbale ma tuuti rek delloo ma rek waaw ah, wa raxabul ashyaai lil amwaati sëñ Tuubaa nee na raddun ila dunya ma al xayaati walaw suwaya walaw suwayatan faqat li yamalu saalihatan tanfahum in xafalu de allah waaw nee na ñu nekk ci armeel ya li ñuy ñaan di ko ñaan bu buñu la waxoon lu ngeen gën a bëgg dañ ñaan dimbali ñu rek dellu tuuti adduna doonte tuuti sax doonte ay seconde lay doon sax ñu mën faa jëf ndax léegi comprendre nañ comprendre nañu même ñi doon def lu baax sax dañuy bëgg gën a yokk ñi doon def safaan mag ñoom dañuy bëgg a jëf moom suñu borom doo ma dimbalee dellowaan ma àdduna lii ndax ma ma mën a dellu ca la ma bàyyi ma mën caa def jëf ju baax dajale ay million di romb ay daara di yom romb ay jàkk yu ñu war a defar di romb ay néew doole nang nga dajale ko rek di yokk muy gën a bari rënk ko fa neg bañ lay waaj jël nga naan la ma bàyyi lépp mën naa cee def lu baax mm, suñu borom ne déedéet loolu day da ko wax nii rek waaye du am njariñ de du am njariñ de mm. ndax doomu aadama dafa am digg yoo xam ne buñ ca accès balaa digg baa ñëw moom kenn du la faat te jotagut waaye digg bu xasee ba jot doo ca yokk dara lii waxtaan wu yii nag mooy am bu amee ba nopp na su ma yaaxusu mu jël ruuxaahu ruuxaam nga fa in kaana bu nekkee muminan di aji gëm fa ala mu nekk ci ak texe wa in kaana bu nekkee munaafiqan dib naafiq fa ala shaqaawa mu nekk ci ak texe di qaala allahu taala yàlla nee na kalla u inna kitaabal abraar naka téereb way baax ñi li fi illiyin ma nga nekk ca bara bu ñu wax illiyin ñuy noos wa fil aayati ci beneen aay mu ne kallaa u na kitaabal fujjaari naka ki naka téereb saay-saay sa yàlla ci yàlla musal la fi la fi sijjiin ma nga nekk ca sijjiin sijjiin nee na ma nga nekk ca juróom-ñaareelu suuf eh, xeetu sawara la rek foofu lañ koy tàbbal ñu ñu ñu tàmbalee di mos mbugal ma yàlla saa borom musal ñu ci musil lañ ci mu ne intaha min shajaratil yaqin lil ashari yi waxtaan wi yëpp jàllee ba nag ko moo day def liggéeyam daal di jël ak ruuxam nag mu jëlee ak ruuxam bu dee ab la woon mu yóbbu ko illiyin mu tàmbalee di yëg xéewal gi mu war a mos publicité yi waaw bu fekkee ab yéefar la nag mu yóbbu ko sijjiin ñu taamal di ko mbugalaale waaw mu xam ne fa mu jëm baaxul yàlla na musal nee na nii la ko al imaamul ashari andee ca téere ma ñu tudde sajaratul yaqin allahu akbar wa aydan dikk na ca ba léegi fii dikri malakal mawti ci tudd malakul mawt alayhi salaam wa kayfa yaqus ak naka lay jële al arwaaxa ruux ya wa zukira nettali nañu fi kitaabil muluk ci téere bu ñu tudde kitaabul muluk ndeysaan an muxaatil ibnu suleymaan ca muxaatil ibnu mooy abul xasan muxaatil ibnu suleymaan euh, tabarkaala nee ñu ko siiwoon la ci euh, firi alquran am na ay ay tafsir yum def nee na nekk na ca téeréem ba nekk na ca kitaabul muluk ñu jële ci muqaatil ibnu suleyman ñu ne dañoo dañoo wóote ci ak nekkam siqa rahimahullahu taala yàlla na ko yàlla yërëm mu ne an na malakal mooti naka malaakam deemi day kaana nekk na loxoo di ko ñeel sariirun mooy am na rek sariirun ab lal fi ci asamaan assaabiati ji juróom-ñaareel ji wa yuqaalu am na ñu ne fi samaay arraabiati ci asamaanu ñeenteel xalaqahu llaahu yàlla bind na lal ba taala kaana min nuurihi ci ak leer ci dara ak leeram bu ñu nee leeru jëmmi boppam yàlla daa am ak leer moom moo ko moom waxuñu leeru jëmmam lahoo am na moom malakul mawti sabuuna alfa qaaimatin juróom-ñaar fukki junni juróom tànk wala boog lal baa am daa mel ne malakul mawti lay wax nag wala woo te am na ba léegi moom malakul mawti arbaatu alaafi janaahin ñeenti junni laaf mamlu an yu ñu feesal eh, eh, mamlu an lu ñu feesal la jamiu jasadihi mboolem aw yaramam bil uyuuni ci ay bët wal alsinati ak ay làmmiñ allahu akbar walaysa ahadun déet kenn min xalqillahi ci mbindeef yàlla yi taala kawe na min al aadamiina ci doomu aadama yi wa tuyuri ak njanaayo wa kulli zi ruuhin ak képp kuy borom ruux illaa ludut wala hoo am na fi jasadihi ci yaramu malaaka mi wajhun xarkanam waa aynun akub bët wa yadun akub loxo bi adadihim ci kem seenu lim ñoom mbindeef fa yaxusu muy jël bi tilkal aydi ca loxo yooyee al arwaaxa ruuya wa yamturu tamit xoole bil wacci ci xar kanam ga allësi ga nga xam ne yu xaadihi dana tolloog moom a saalika looloo tax yaqbilu muy mën a ngëpp arbaaxal maxluuqiina ruuxu mbindeef yi fii kulli makaanin ci barab ci bépp barab bu mën a nekk fa ida maatam nu aadam bu doomi aadama faatoo dahaba mu daal di effacé wu mu daal di dem aynuhu bëtam boobe min jasidi ci yaramam ba sëñ mu xaatil ibnu Suleymaan dafa nettali nee na ne malakul mooti ab lalam dafa yor benn lal boo xam ni nga ko teg ca asamaani juróom-ñaareel ñenn ñi ci ñenn ñi ci asamaanu ñeenteel lalu boo xam lalu leer la moom malakul mawti am na juróom-ñaar fukki foofu mu toog juróom-ñaar fukki junne yi tànk ñeenti junne yi laaf yaram moom bi rek moom malakul mawti dafa fees dell ak ay bët ak ay làmmiñ ah, loolu doy nee na nag boo gisee moom malakul mawti mu jekku mbindeef ba mën a jël seen ruu ci anam gu mu mën a doon ak fu ñu ko mën a fekk nee na mboolem mbindeef yi doomu aadama yeeg njanaaweek mboole lu am ruux leen lu ci nekk malakul mawti am na euh, sa copie <laughs> am na sa copie maanaam daal yaramam ba euh, kenn ku nekk ci ñun sa sa bët ma nga foofa ndeysaan <laughs> doy na waar ndeysaan sa xarkanam kanam am nga ci xar ca biir yaramam ba am fa bët am fa loxo loolu nag mbindeef yàlla yi nu mu toll mbindeef yàlla yëpp nga xam ne kon moom dafa mel ne jëmmam ji daal dañu cee enregistré muy mel ab ordinateur nga xam ne boo demee information yi nekk rek waaw malakul moo tax dafa fees del ak ay bët ak ay nangam doomu aadama yi niñ toll ñëpp seeni bët ku ci nekk rek am nga fa ab bët ak xar ak loxo nee na bu waree faat kenn day jël loxoom yooyee mu am tam nekk ci yaramam ba xoole ko nag ak bëtam ba mu fa am ba toolam daal koy neen daal koy faat nga xam day jàppandi lool ci moom du tee mu eh, def lu mel ne jëm mu teew nee na loola tax mu jekk mbindeef fi ba doomu aadama ju war a faatu rek eh, incha allahu rabbi mu mën a jekk lool na muy jëlee ruuga jàppandi ci moom waaw nga xam ne loxo ya am foofa ca yaramam ba lay jël jëfandikoo bët ba nga am ca yaramam ba moom la lay xoole eh, daal day daal lay faat ju xas ba faatu ba noppi nag. bët ba mu amoon foofee day effacé wu parce que dañoo xam ne kon kii faatu na kon léegi mboolem ñi nga xam ne seen bët ña nga fa ak xarkaram ñooy ñu kon ne dund ba léegi rek kon day xam ne li ab liggéeyam jeexagut ma ne kon daw ay bët ki ay ay ay xarkaram ñi des ci mbindeef yëpp ak lam jot a faat kenn xamul nu mu toll wa yuqaalu des na wax ne inna lahu am na moom euh, malakul mooti arbaata aw juh yente xarkanam wajhun kanam alaa rasihi gu sax ca kaw bopp ba wa wajhun ak xarkanam ala waxrihi gu sax ca ginnaawam digg ginnaaw ga wa waccun ak xar kanam goo xam ne amaamahu ci kanamam la nekk ci njëxam wa waccun ak xar kanam taxta xadamayhi gu nekk ci ron ñaari ndëggoom fa yaqusu day dana jël arwaaxa saalihiina ruux way baax ñi wal malaayikati ak malaaka yi alal wachi ci xar kanam ga nga xam ne ala rasihi nekk da ca kaw boppam wa arwaaxal muminin muy jël ruux ak jullit ñi ca xar nekk ci kanamam wa arwaaxal kaafirina muy jël yéefari min warai zahrihi ca ginnaaw ginnaawam ga wa arwaaxal jinni mu dana jël ruuxu jinne yi min taxati xadamayhi ca xarkaramam ga nga xam ne ca la moo nekk ca roon ay ndëggoom wa ahadu rijlayhi benn ci ñaari tànkam ala jisri jahannama ma ngi ko gàll ca pont bay jëm jahannama yàlla yàlla musal ñu ci wa oxra tànk ba ca des ala saririn mi ngi ko teg ci kaw ab ablal fil jannati ci àjjana <laughs> est-ce que ne nettali nañ ne malaakal mawti ñeenti xar la am am na xarkanam kanam nekk ci kaw bopp bi kooku buy faat euh, malaaka yi ak wàllu yàlla yi nit nit ñu baax ñi xam nga dañuy faatu xar kanam la leen di xoole bu dee nag xar kanam xam ne moo nekk ci kanamam moo nekk ci kanamam nee na buy faat jullit ñi ci la leen di xoole xar kanam gi nga xam ne moo nekk ca ginnaawam nga rek nee na ci lay buy faat yéefar moom lay jàkkaarloo ak ñoom xar kanam gi nga xam ne moo nekk ci ron ay tànkam ci lay faate jinne yi nee na malakul mot nag ñaari tànk la am benn tànk bi wala boog am na ñaari tànk rek ndax fële fële waxoon na fa ay tànk yu bari moom daal am na ñaari tànk yoo xam ne moom benn bi ma ngi ko gàll ca benn lal bu nekk àjjana ba des mu gàll ko ca pont ba war a jëm pont ba war a jëm sawara am na yàlla musal ñu ci musal leen ci euh, kon ñàng na wa yuqaalu des na wax min azamatihi ngir ak rëyam ne law subba doonte sottee foon na maa un maa u jamixil bihaari ndoxum mboolem géej yi wala anhaari ak xeeti dex yi <clears throat> ala rasi ca kaw boppam ba maa waqaxat lu dal de xataratun benn toq ndox alal ard ci kaw suuf am na ñu ne malakul mawti rëyaay ba bu fekkoon dañoo jël géej yi nekk ci àdduna xam loolu doy na waar wax dëgg yàlla ndax genn géej ni mu toll kenn xamu ko nga jël géej yi nekk ci àdduna ak mboolem luy xeetu ndox dex yeeg yëpp buñ jëloon buñ jëloon ndox yëpp sotti ko ci boppam ba nee na benn toq ndox du du rëcc bay dal ci kaw suuf ndax lépp day dal day maanaam day yem day yem képp ca bopp ba kon xam nga ne kooku euh, saa defal na ko tabarkàlla <laughs> jëmm ju xaw a doy waar ndeysaan euh, wayuqaalu dees na wax na inna inna dunya naka àdduna bi asriha ci mboole seen waaw fi ayni malakal malakil mawti ci bëtub malaaka malaakam deemi ka xabbati xardali mi ngi mel ne sunguf rek fi yeddi ahadikum mu nekk ci loxal kenn ci yéen wa kazalika niki noonu alxalaaiq mbindee fi it noonu lañ mel ci moom fa innahu naka moom malakul mawti yu xallibu day wëlbati alxalaaiq mbindee fi kamaa yu xallibu ni muy wëlbati ahadikum kenn ci yéen ad dananiira dinaare wa daraahim ak dërëm ñu ne malakul mawti kat <clears throat> adduna jépp adduna yëpp ni mel ci malakul mot ni mel ci ab bëtam boo koy xool dafa mel ne yow dooma aadama bi yow mi jël euh, pepp sunguf teg ko sa loxo bi ni nga koy xool ni nga ko jekkoo ni mu tuutee ci yow malakul mot la mel ci ñun noonu lañ mel ci moom mbindee yëpp maanaam adduna mbindee na euh, yow doomu aadama bi boo yoroon aw weccat waaw yor ko nii di ko di ko tiri di ko xool ni koy jekkoo ak ni nga koy xamee ak ni muy tuutee ci yow nee na moom noonu lay wëlbatee mbindeef yi <laughs> waaw mbindeef noonu la leen wëlbatee ñu tuuti lool ci moom ndeysaan waaw koo xam ne bu jëloon ndox yi adduna yëpp sotti ko sa bopp bi moom euh, dëgg yàlla am na malaaka mu ñu yaakaar naa jàng ngeen ko ca tàmbali ba ba mu jël géej gu rëy ga ndeysaan di bopp bi genn wàll nga xam ne moo tooyoon ndeysaan waxees na ne inna allaha taala naka yàlla mu ko amee isaa afna boo jeexalee xal xalqahu mbindeefami kullahum ñoom ñëpp min annaasi ci nit ñi wa xayrihim ak ñu dul nit ñi yutfi u day daal di fay nag al uyuna a allati ya nga xam ne fii jasadi malakil mawt mi ngi nekk ci yaramu malaakam dee bi euh, kulliha mbooleem seen xaalahu wax na wax jooy al ashariyu ca téeram booba xam nga nee na mbindee fi ku ci nekk am na ab bët bu saxee foofa ca malakal mawti bu ñëpp deexee nag bët yëpp day effacé wu waaw léegi nag malakal mawti euh, moom ci boppam day faatu jëmmi dee ci boppam moom it day faatu nit bi dee ci moom day faatu allahu akbar neena wa fi taxqiqil mabaani wa fi taxqiqil mabaani nekk na ca téere bu tudd taxqiqul mabaani mu ne wa axraja génne na ab tabaraaniyu tabaraaniyu fil kabiiri ca alkabiir di téere bu ñu xam wa abu nuaymu ne an rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naka yonant bi yàlla bi sallallahu alayhi nazara dafa xooloon ila malikil mawt jëm ci malaakam dee mi yow man benn bis inda rasi rajulin mu nekk ci bopp benn waay menel ansaar ci waa ansaar fa xaala mu wax moom yonent bi ne ko yaa malakal mawt yow malaakam dee mi eh, irfuq na nga ñeewant urfuq na nga ñeewant bi saaxibi ci sama saxaaba bi de fa innahu moom de muminun aji gëm la fa xaala malakul mawt malakul ma tontu yonent bi ne ko tib nafsan waaw na sa xol sedd wa qarra aynan ba tey na sa xol sedd rek loolay teg tib na nga tey nafsan ci bakkan wa qarra eh, ta nga sedd aynan ci bët ah, mooy na sa xol sedd rek eh, ne ko waalam na nga xam ne bi anni ci naka man rafiqun aji ñeewantu laa bi kulli muminin ci bépp aji gëm waalam xamal yaa muhammadu yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam inni naka man la aqwidu danaa ngëpp ruuxam ni aadama ruuxuk doomu aadama fa isaa saraxa ndem yuuxu na saarixun aji yuuxu min ahli daari ci ñooñ kër gi xumtu ma jóg wa maay te ànd naag man ruuxuhu ruuxam nga fa xultu ma ne maa hasa suraax lu waral yuuxu googu wallahi maa ngi giñ ci yàlla ne ma maa na ma maa walam naahu tooñuñu ko kat wala sabaq naa te jiituwuñu ajaluhu ab digam wala staajal naa te eh, gaawan gaawaluñu qadarahu ab dogalam qadarahu dogalam ba wa maa lanaa te amuñu fii qabdihi ci ngëb giñ ngëb ruuxam gi min tan min ci benn bàkkaar nag fa in tardaw ndéem gërëm ngeen bi maa suni xaj ca la defees na ko tujuroo def na leen yool waaw wa in taxsanoo ndéem da ngeen jàq wa tasxatu ngeeni mer tasamoo da ngeen bakkaaru eh, dégg nga wa tutharu te def na leen musibaal wala des na leen bindal bindal bàkkaar ba léegi maalakum déed mu leen ñele ina naa fi ñun min utuba ci genn ngërëm wa inna lanaa naka ñeel nanu indakum fa yéen awdatan ak dellusi si baada awdatan ci ginnaaw ak dellu si fal xadara al xadara wattandiku leen wattandiku leen intaha minhu waaw minhu maanaam ca loolu mu euh, nettali ci al mucjamul kabir li tabaraani ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis dafa gis malakul mawti muy faat benn saxaaba bokkoon ci ansaar yonent bi moom gis na moom day gis nee na yonent bi ne eh, malakul mawti ah ñeewantu ko de ndeysaan def ko ndànk de kii sama saxaaba yi la bokk te ab jullit la malak malakul mawti tontu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonent bi man jullit bu may jël ak ruuxam rek dama koy ñeewant maanaam ndànk laa koy def te dama laa bëgg a xamal ne eh, su may jël yow Muhammad su may jël ruuxuk doomu aadama su ma ko jëlee ñu daal di yuuxu waaw kenn ci njabootam wala waa kër gi daal di yuuxu comme ni ko baaxoo defee rek damay jóg fekk fekk jël naa ruux gi ba noppi daal ne waaw yéen ñëw ñu di yuuxu yuux gi ko lu ko waral maa ngi maa ngi ci yàlla ne wax dëgg yàlla tooñuñu ko ñun lii ñu def nii ci ndigal lañ ko teg yàlla moo doon sant ñu jël ruuxam ñu jël ko tayit dig ba mu waroon a jot na xam nga nit ñi moom dañuy bëgg mu continuer ak a neexoon ñu bàyyi ko feeg yooyu mu ne dig bi mu waroon a faatu jot na yëkkamti de nekku ne dañ koo faat te dig ba jotut ndeysaan tey it ñun lii ñu def duñ ci am benn bàkkaar ndax ci ndigal la tegu bu fekkee nag gërëm ngeen dogalu yàlla bi wàcc ngeen jëlee ci tuyaaba ngeen jële ci tuyaaba waaye bu fekkee da ngeen cee mer nag aka wax ay wax bàkkaar kese ngeen ci ngeen ciy jële waaye ñun lii defuñu ko ngir sàkku ci seen gërëm tayit ñun bii bii du nekk suñu yoonu mujj waaw bu fekkee da ngeen bëgg heure bu ñu jëlee ngeen yuuxu moom boo liggéey dana ñëwaat jëlaat jëlaat jëlaat jëlaat ba keroog ngeen jeex rek kon nag moytu leen moytu leen wax ji bokk na ci wax ji nga xam ne bi sëñ Abdourahman euh, radiallahu anhu wa ardaahu bi mu génnee adduna bokk na ci yi ñu daggoon monte ko waaw mooy loolu nga daan dégg mu naan dogal ba wéy lii am am na ba noppi boo ko gërëmee yàlla fay la ci ab yoon loolu rek la maanaam li fii la téere bii la doon leeral ba toll fii mooy fi nga xam ne sëñ bi mi ngi wax naan fa in tardaw bi ma sunia tujaru ndeysaan waaw yàlla def na dogal bi lii am am na ba noppi bu ngeen ko gërëmee suñ borom defal leen ci tuyaaba waaye bu ngeen nekkee di ñaxtoo ko def nangam ak a wet dogal bi yàlla nag eh, suba bàkkaar rek ngeen ci ngeen ci jëlee ah, loolu nag rafetut noonu ñu ko daggee di ko def noonu ndax réeral yoon naa réeral ñu bari ñu defe na sëñ bi ci boppam moo doon dénkaane loolu wala yu mel noonu fekk dañ koo dagg rek nag loolu gënut mhm. wa fi sajaratil yaqin lil ashari wa ruwiya nettali nañu an kaabil ahbaar radiallahu anhu mu ne anna laaha naka yàlla taala kawe na xalaqa bind na sajaratan ak garab taxta al arsi ci ron aras nekk na ca garab ga awraaqun ay xob bi adadil xalaayiqi bu toll ci limu mbindee fi kulliha ñoom lépp fa isantaha bu jeexee ajalul abdi digub jaam bi wa baqiya minhu ta mu dese ko rek arbauna yéen fukki yowman ci bis saxatat mu daa di rot waraxatu aw xobam fi xijri asrail eh, ci peggu asrail alayhi salaam fa yuqinu mu wóolu bi zalika ca loolu am ne anna allah naka yàlla amara da koo digal bi qabdi ruuxi saahibihi ci ngëpp ruuxu borom xaboo wi wa baaxdu ginnaaw ba ne yu sammuunahu danañ ko tuddee mayitan muy aji faata fi samaay ci asamaan waxwa te fekk waa ji nag xayyun aji dund la fil ardi ci suuf arbaina yowman yéen lil imam al kaabu kaabul axbaar nettali na na jële ci yonante bi sallallahu alayhi nee na suñ boroom subhaanahu wa taala ca ron aras dafa am genn garab gum sàgg garab gi nag xob yi xob bu nekk turu benn mbindeef da caa nekk fi yi ñu toll mbindeef yi dund ñëpp ku ci nekk am nga fa aw xob am xob nee na ku ab digam jeex xobo day jekk-jekk rek wadd waaw képp koo xam ne ab digam ñeen fukki fan moo ci des xob yi day wadde ci wetu asrail mi jël ruux yi su ko defee bu xob yi waddee asrail jël ko liir daane kii de diw la waaw suñ borom daf maa bëgg a sant ne naa waaj ngir dem jëli ak ruuxam man la ko dese bariwut su ko defee kookee fa moom dañuy jàpp ne faatu na ba noppi ndax aw xobam wadd na waaye ci suuf nag dese na ko ñeen fukki fan yu mu war a dund waaw su ko defee waa asamaan moom xam nañ ne kii faatu na ba noppi nee na foofa ku faatu lañ koy wooyee fekk waa ji mi ngi dund di waaxu dox ay soxlaam ak di lijjanteeg lépp euh, ndeysaan yàlla fekk la muy lijjanti doon lu baax ndax bu doonul lu baax ci mujj gu ñaaw lay mujj yal na yàlla saa borom ñu ci wallahu aalam alhamdulillahi alkarimi silmilan ala stifadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu xad saxani liwatani bi nafa ma